dikkati naa présidentielle 2024 bi day mi ngi mel ni ku tëb dal cib xal dese na la génneen tëb le quotidien naan maan ña ngay xuus rek présidentielle bi mel ni géej mënta jeex l'enquête quotidien naan kon ñoo yey ndeke yoo Karim Meïssa Wade day double nationalité feeñal na yeneen ya ca suuf le quotidien le quotidien naan kon en tout cas Rose Wardini ña nga naan moom it double nationalité la am tribune yéen a kaay naan kon moom procureur na ci wax na atte ñaar ñu xeexul laataa songoo am ci mbir mi ndax coowal mën a taal réew mi moom procureur nag waral ni niib candidat yi nga xam ne dañoo am double nationalité daal di koy nëbb ndax nag dañoo def déclaration sur l'honneur déclaration sur l'honneur boobee ñu def waat ne lépp loo xam ne charte Sénégal laaj na ko ngir ñu bokk ci élection présidentielle yi matale nañu ko te moo ne charte Sénégal dafa ne képp koo xam ne bëgg nga dagat baatu askan waroo am ñaari nationalité am ci ñoom ñoo xam ne am nañ ñaari nationalité tribune naan maan bokk na ci ñoom Rose Wardini nga bi le jour naan déet amoon naa ko faxas naa ko turbine yéen a kaay ne ko ma ñëw rek mbaadu yow Rose nag karin may sa wadd mii da ngeen a yemum àtte ak yeneen i candidat yoo xam ne ñi ngi ci biir élection présidentielle bi te nee na ñaari nationalité la ñu yor Anta Babacar Ngom ci Vox Populi naan ña nga ma cay tuddu man benn nationalité laa am te mooy bu Sénégal turbine yéen a kaay naan tempo tempo Karim Meïssa Wade ñaari nationalité la am soxnay PDS ya nekk ca Italie na déet Karim sa wadd ñaari nationalité la amoon na leer moom Karim keroog ba nga ni conseil constitutionnel ma ngay tabb yore nañ këyit goo xam ne firndeel na leen ne moom Karim Meïssa Wade mii amatul nationalité française waaye ñene ci list définitive bi tey ci am ñaari nationalité lan mooy seen atte soxnay PDS ne ca Italie naan ngembu nañ ba dëgër ndax Karim Meïssa Wade mii daañu xam ne réew mi am na fi bàjjen ci élection présidentielle yi moom dàq rek amul luñ ci wax lu dul dàq élection bi ndax nag Karim Meïssa Wade mi ñu faxas daañu ko rëcc wala ndax bu dee ñaari nationalité moo tax ñu faxas ko benn bi Karim gàntal na ko waaye te bokk nag lépp soxnay PDS ca Italie di ko jiiñ Amadou Ba le peuple naan man en tout cas Khalifa Ababacar Sall ma nga naan ma ngay jàppale Karim Meïssa Wade ci lii nañ xuus ci mbir mi ba jeex leeral nag lan moo tax Karim mënta bokk ma nga naan ña ngay encouragé Karim Meïssa Wade mu daal di xeex ba am ndam ci lii tribune yéen a kaay naan kon am nañu am double nationalité jàll nañ le peuple naan kon laaj bi mooy lan moo waral sept sages yi bàyyi ñu jàll su dee am na mbaadu nag conseil constitutionnel warta démissionné a bi moom moom ngi koy patam patamee gaa yaa ngi koy saax saaxee ngir mu gaaw taxaw le point ak ci naan maan mani la diggante président Macky Sall ak Amadou Ba lu xew laaj baa ngoog Cheikh Omar Sy conseiller spécial ci primature nee na commission d'enquête parlementaire bii la ko sabab taxawal ko ca pale la jógee commission bi daar daar liggéeyam taxaw ni ki démb mambay ñaa barki démb xas na Amadou dara fekk ko ca Amadou Ba kenn gisatu ko ci peggu président Macky Sall lan mooy problème bi turbine yéen a kaay naan kon laaj ba kay da ngeen ko war a gën a xóotal moo moo di nag bi la élection ña nga tàmbalee sax-saxee candidat yi ca dépôt parrainage ba processus ba nag foofee lañ ko tàmbalee patam patamee nërmel ko fichier ba nag kenn mënu caa gis sa bopp ñii naan ñaari fichier ñoo am ñeneen ña ñet nit ñi daal di réer daar daar ca fichier ba turbine ne ma yemuñ ca ñu am candidat yoo xam ni jàllale le leen te ñu am double nationalité mbaadu nag ca pandaw la lii lan ca jublu woon mooy dem ba fee temps jaxase carte gi moom président Macky Sall nag mbaadu moom la ñu bàyyile report bi mbaadu lu njiit njaag ci report nga xam ne moom la ñuy waxtaanee moom Sall nag ko daal di jiite Sud Quotidien naan kon élection yi day buñ ko dàqee ci réew mi lu risqué la diggante Benno Bokk Yaakaar ak Parti démocratique sénégalais critique yéen a kaay naan kon sàll cellam gi yéen jaaxalu leen fi mu toll nii ña ngay patam-patamee institution bi nga xam ne daanaka bokk na ci gën a rëy ci réew mi moom sall mu ne pat ñuy jël ñoo xam ne ay gor lañu di leen jori xeer te ñooñee daanaka gàlloo réew mi moom président Macky Sall ma ne mu maye pat léegi nag Sall lan mooy rôlam ci mbir mi Thierno Alassane Sall ci Walf Quotidien ne ko dara bëgg def coup d'état constitutionnel rek dàqi élection kese képp la ñu bëgg nag moo tax lii lépp daal di juddu ci réew mi vox populi naan kon cey bu ñu dàqee yi la élection professeur Moussa Diaw naan kon jarta rafetal de bu ñu dàqee élection yi moom président Macky Sall dina sóob loxoom ci ëkk bu yaakaaree ni dina dàq élection yi génnee ci nii Sall juum nga de bu dee bëgg nga sooy Sénégal élection yi na teer yi yéeni kaay bi naan kon article 52 nag docteur Abdoul Aziz Mbodj naan kon lan moo fi bloqué lan moo tënk Sénégal ba article 52 ñu war ko waxtaanee gis nga président Macky Sall élection yi dina fi def lu ne weng loo xam ne Senghor mosu ko fee def Abdou Diouf mosu ko fee def Abdoulaye Wade mosu ko fee def Birahim Seck bu forum civil naan koon dañ fay gisul lu fi ñor bañ koy màcc dàq élection pour lan l'observateur naan koon en tout cas yéen a ngi fowe seen xel yi Aliou Ndiaye mu Ndiaye si sax Birahim Seck naan Sall delloo sil sa xel te xam ne yaa ngi bëgg dugal réew mi ci guuta goo xam ni maar day taali 24 heures yéen a kaay jox kàddu Moussa Sène Absa moom si bi di laaj lan moo xew Sénégal te lii lépp nag li ko waral moom moo di prince jëlal sunu ñaq mu siim sa cere demal say banque ca londre roppi loo fa amoon waaye waaye sunub senegal daal bàyyi ko ci jàmm ak dal turbine yéene kaay mel ni ku naan leen da ngeen déggul de dama ne du Karim sa Wade képp moo am double nationalité bari na ci candidat yi ñoo xam ne ñoom it ñaari nationalité la ñu am te tey jii bokk nañ ci liste définitive ñu war a dagat baatu askan wi lii ya tax nag juróom fukk candidat yoo xam ne dañoo xeex seen ak ak yelleef patam patamee leen caxat caxatee leen daal di leen di seppee ci élection yi daal di dem ca mbootaayu xeet ya waaye tam dem ci union européenne jébaane fa Sénégal war na ñoo dajeeg représentant bu Antonio Guterres collectif bi nag Malem Jorg war leen dajeel laataa ñuy janoog taskatu xibaar yi ngir wax leen lépp loo xam ne tukkee na ci seen ndaje googee parti bii di Sénégal sunu yitte pax ma nga naan Sénégal daal yéen a yor seen cëggal guy xool leen tànneef wi gën ngeen samp ko ci boppuk réew mi pax naan candidat yi lu ngeen mën a wax sénégalais ci élection yi nay doon kàddu jàmm ndax Sénégal daal jàmm gën ay te yéen it candidat lépp lu ci élection yi na ngeen ko nangu yéen électeurs yi déglu leen ba xam candidat bi gën déglu leen programme yi xoo ka nga xam ni moo gën ci Sénégal ngeen tabb ko bañ caa amuk parparloo Sénégal sunu yitte naan Sénégal na doon seen yitte ndax ka ngeen di tabb fi mu toll nii moo war a ñaabar ñaabari yóbbu Sénégal ci ëllëg wu gën réew mi ko dajee naan koon ca ñu war a tabb bokk na ci Bassirou Diomaye fay tey jii kandidaa la ma ca kaso ba moom basiiru lankal nañ ko yaay nee nañu liberté provisoire ñu ne déetawaay nag moom Bassirou Diomaye Faye ñu koy dundaloo daanaka jaxaan na ma ca kaso caxat-caxatee néegam saa su ne mel kuy wër dara moom Basiirou Jomaay Fay tiit fi mu ne ci lekkam ndekki jëlatu ko tiit tamit ci kaaraangeem fi mu ne wàññil nañ ko bés ya mu doon gis ay mbokkam Basiirou Jomaay Fay ci ëtt bi lay dalal ay ganam amatul waxtaan ci peto amatul woote téléphone ci koo xam ni yéen a bi ne ma candidat la ci élection présidentielle yi l'observateur naan kon xam nga foowe xal mu lakk sa daay daanaka lii moo am ci réewum Sénégal ci la élection ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm